loo gis na avenir politique Ousmane Sonko. waaw waaw xam nga euh, booy xool tamit Macky bi mu njëkkee jóg ñëpp ko bëgg man Ousmane Sonko dama koy xoolee ni Macky Sall am Sall Ablaye dafa nangu paaspooram yàlla yëkkati Macky nit ñi bëgg Macky Macky Sall bu muy bu muy ñëw fii buun boobu élection des na lu ma trois ans wala wala deux ans et quelque trois ans sax muy ñëw di dugg ci biir nit ñi ba nit ñi miin ko gis nga élection yi ni ni ñu ko def foofu rek laay xool Ousmane Sonko ah di wax ne nañu nañu dal rek yàlla ne day am Sénégal incha allah dina ko am Ousmane Sonko moom coowam li bari na lool. fi mu ne ni loo wax ñu ne sonko sonko sonko sonko loolu yàlla moo koy def ci nit man nag mosuma koo gis vraiment xaw ma ko xam naa ko nii rek par média noonu laa xamee kii euh, euh, kii Idrissa Seck par média mosuma ko gis mais média yi laa leen di gisee ma ah, Madické Niang gis naa ko benn yoon hmm? waaw euh, waa Pire bi xaw ma ko comme média la keneen ki ci des tamit waaw ñoom ñëpp kii dong laa ci gis su ma di Kenya ak Macky Sall ñi ci des ñëpp mosuma leen a gis di ñaan daal li may ñaan daal Sénégal yan na fi jàmm wàcc yan na fi salaam wàcc ku fi bëgg lu bon yan na ko yàlla fànq ku fi nar lu bon ci élection yii yàlla na la yàlla fànq wëlbati sam xel ba mu mujjee ndox mu sedd guy ci askan wi yëpp ci barke yonent bi